di leen wax ne tey su leen déplacé waa ñëw ci jaxaay plus précisément ñoo ngi 11B ñëw seet si ci seen émission waajal combat tey maa ngi war a jàkkaarloo ak kan Ndiassé Yolé Yolé Yolé Yolé bu jaxaay Yolé bu école de lutte Boy le poulain de coach Bara Gueye moom laa ñëw le poulain de Thierno Sakho moom laa ñëw seet le poulain de Boy 2 le poulain de Vie d'Asia, le coéquipier de Papa Cité le coéquipier de Maman Lamine numéro 2 moom laa ñëw seet si day mi ngi waajal un combat capital un combat crucial face à qui Tafaler numéro 2 Tafa Leer bu parcelle bu écurie jàmbaar wrestling academy moom la war a jaakaar loolu dem naa seet si Tapha Leer na bu ko jàppee na ko tegal lu métti tey ñëw naa seet si Ndiasse Yole il faudra moom tamit mu apporter la réplique il faudra ñu waxtaana ah fi mu jóge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm combat bi nu mu koy waajalee combat bi nan la ko war a bëree après combat bi fan la jëm et tout et tout et tout kon jàpp leen ni sama gars yi Ndiasse bu jaxaay école de lutte Boy mooy sama invité tey seen émission waajal combat. Euh, rakk ji maa lay ziar. maa lay ziar grand bi. sant biram jaam naka yitey sant sant bu wér sant yàlla bu baax a baax a baax kon euh, mbokk internet yi dama naan ki ngeen jàkkaar loolu moom mooy Ndiassé Yole bu Jaxaay avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seet yee maa ngi bëggee di sant ñëpp xama di bëggee ñëpp tamit ah di wax ne bàyyi ni ngam jaamu siyaar naa leen bëgg leen lu takkoo takku takku ah di bëggee mafia bi ama seen fay mais yàlla na yàlla fay di bëggee muy waa ba maa leen di bégee di leen siyaar di lañ dooleel bu baax a baax baax a baax. loolu ngay nuyoo. waaw loolu laa nuyoo. kon dama naan ko koy njaase yoole ah eh, rakk ji eh, da nga yoole. waaw kaw ba suuf kay. bu neexee suñu borom. génne ci suñu borom maag yow ñooy wax mu naa ma bu neexee wala autre si dama ne yow da yoole. bu neexee suñu borom. a nga tey jii wax bi ma wax rek bu yegee suñu borom la moo tax ma ne la bu neexee suñu borom. yoole ma bu baax.

benn booy moom woo mbër benn booy bu mën a bëre dafa leer numéro 2. ma grand bi ma ne ko naa mu ne ma am naa combat ma ne ko maa ngi ñëw jël la émission waajal combat ma dem fa kan ngay bëreel mu ne ma njaasee yoole mu ne oh sama boy bi fi mu daal baaxul man sama fit dafa ne rëf bi mu ne yow lay bëreel yaa may dégg léegi nag Sénégal yëpp ñu ngi ñuy seetaan ah hmm, yow jël avance Tapha Lène bu baax waaw man maa ñëw ñu ne ba xam kii baax na ñaari adversaire sax laa fekk man laaj ko moom kon nga war nga mën a xam ne man tapé ma ko jigaa ji la maa ko lekk yaa lekk avance tafa leer numéro 2 man yoole man maa lekk avance tafa leer numéro 2 waajal dem bëri avance dem ko di waajal asat yow maar le 6 mars le 6 mars yeah cité bu ngor chat rebus yeah petit production mo teug sa combat petit waaw moko teug petit promoteur yeah bi ma sum premier d'accord je vais revenir hein gars ak bu mu fa mënti demee jaxaay moom man si fekk y a des te des fois gis ay pépite ay xale yu ndaw ay boo yoo xam ne ay xale yu ndaw bu ñuy génn boo rombee da naan benn Modou Lo mooy bëre wala benn Balla Gaye 2 mooy bëre loolu dama ko fee gis maintes reprises maama Lamine laa ko njëkk gisee je me suis dit bi fu mu jógee papa si ñëw taxaw ma ne waaw non ça c'est man moom papa moom ba léegi damaa jàpp ne day loué ay nit papa si li muy génne li ah ñu ne ma beneen booy beneen phénomène mi ngi fi leen kan ñu ne ma njaasi yoole mais man moom man sama problème mooy suma ma sañoon euh, en tant que phénomène boo génnee sa premier baa nga dem am dara mais fi nga dal nii baaxul dafa leer numéro 2 c'est un excellent lutteur dafa mën a bëri dafa leer bul ma ree bul ma ree je ne suis pas un comédien booy lu leer laa lay wax dafa leer dafa toj jurbel dafa toj jurbel dafa toj bawal ñëw dagaate nee na ma grand bi ma ne ma ne ko naa mu ne ma gars yi jàpp wàccee laa séq ak ñoom abi sifle mo beure japp daan loolu laa séq ak ñoom loolu la ma wax wa xam nga ñun bo nu xolé na su kanam xam do no beure ba tass bar sëñ bamba dañu bëri ba tass da nga beure ba dama beure ba tas boog manam mbabat mbabat ba tas ba ba sonn maanaam tafaa leer yoon lo bo xamne damay ñew jaar jàll man loolu laa séq ak mom loolu laa séq ak mom ñëw japp ko daan ko après dem xol sama kanam ñu suara jël bapak waat sa carrière bapak. nga bu baax toj nga mbapat yow yow da saa yow doo comprendre dama bëgg comprendre nag moo tax may posé ay ok dama bëri dama da bari sëñ baama dama bëri ba tas ba ba tas laa la wax bi ma sam premier combat arène di ñaan yàlla suñu borom defal ma ndam te lépp nag dina leer fan nga jóge ñëw jaxal man gunaas laa judoo gunaas juddoo nga ci koñ bu bu bu am koñ boo xam ne làmb dafa am doole. dëgg la man ak Abdou Diouf ñoo bokkoon benn rangé kër Abdou Diouf. Abdou Diouf mel na. su ma koñ ñoom xaaru na sax. ay ñaari gaala moo ñuy tàqal ay ñetti gaala yi. ñoom dund bu waar. déggoo ma xanaa falaa juddoo fi nga xam ne ñoom papa boo jëlee nga xam ne waaw fi nga xam ne làmb fala fala fala sosoo man falaa juddoo. am na fu doole noonu la demee nag ma ñëw fii nag mais lépp lu ma mel ci xaay moo ma def. fila laa xamee sak làmb sax lamb man fila laa ko fooyee sax bu bëggee dégg-dégg fila laa fooyee fila fii laa bëree mbapat fii laa defee lépp maanaam ñi bëgg yépp jaxal lañ ma bëggee ñi ma bëggee mbapat lañu bëggé yaa ngi comprendre surtout ñi nga xamné ñoo tok sama côté ni mafia bi ni do ko do sax comprendre mais le 6 mars yow di nga xamné ne bi ñëw na andal lu bees taax la moy sama dama dem ni ma grand bi mané ko na mu ne yoole bu ma ko jàppee oho mooy waaj nen li mel nee na lay waajal lu métti dawaa leer nee na lay waajal lu métti loolu la ma bi nga seetaan ko nee na mi lu métti Tapha Leer numéro 2 lu mu waaj Tapha lu mu waaj waaj naa lu ko law mën nga daan Tapha ko daan naa ko daan ba jéggi ko am ñu jàkkaarloo dama koy daan ba jéggi ko laal émission waajal combat nekk yow ñëw ma jël si la interview ñëw ma jël si la émission man ak euh, émission làmb man ak diw dama ñëw émission waajal combat xam émission victoire après combat am na normalement ce qui veut dire kon seen jouru combat après combat bi danaa seeti kenn ci yéen ñaar man moom neutre neutre laay taxawee bu kenn du ma dugal parce que dem naa keroog parcelle jëli ko tey maa ngi jaxaay lu leer laa lay ku daan lendemain bi damay déplacé ak sama matériel ñëwaat ñu seeq waxtaan moom nee na dalay dalay wàccee nee na bu la mbaay bi naa la envoyé bi nee na seexul ak yow dara lu dul at bi sifflé prip mu jàpp la taxañ teg ci suuf avancé uti leneen moom loolu la ma wax léegi yow jour yi naa ko duma naa ko daan hmm. ko duma daan dinaa la duma dinaa la li ngay wax ne du kaay mafia bi toog nii comme ça gars yi toog fees bi dell nii ngay dellu comme ça di bandi bandi lu change yooyu noonu est-ce que du loolu nga mafia bi damay dugg fu risque foo xam ne ni sax ñoom duñ fa nekk mafia bi yee damay dugg fu risque foo xam ne ñoom sax duñ fa nekk agresseur lañ de léegi dama dugg fee rek booy tegal ma lu métti gannaaw bi da ngaa guddee da ngaa guddee man leen maa ngi jégalu ñi ñooy bu teng bi ñooy mafia bu teng waaw ëxlu mbéy yow bu mag bi sax nga fekk ma ba fekkan bu ndaw bi leneen ngay gis lié 11 b lié 11 b san bàyyi faal yee nga dafa am fekk ndeysaan ñu teg seen café ndeysaan teg seen yooyu noonu cant yeeg yooyu noonu mooy yi ni cant yi la ñuy waajal quoi bàyyi falmaa bi la ñuy dund yee fii bàyyi falmaa moo fi daw fi koo fi gis mu ngi takk njalabaan wala yu demee noonu xam nga te ay Baay Faal lañ te dundin Baay Faal nag la dund man lu tax ma gën a sawar ànd ak ñoom dundin Baay Faal bu ñuy dund ko barke Serigne Touba. préparation combat coach moom sama grand la moom il est très méchant waajoo du dafa soxor kooku bu jàppee mbër ci entraînement rek da lay teg lu métti. dëgg la yéen coach Bara sax ngeen gis mais coach Thier moo gën a yéeme. noo xam ma Thier sax Thier sax man sama rakk la Thier ñoo bokkoon benn koñ yaa may dégg mais Bara man moom mun naa ne moo ma yar kooku moom. Euh, làmb waxul dëgg rek làmb waxul dëgg rek mais baara ñun ku ñu waxoon du lekk ay millions ci làmb ñu ne la dangay ngay sóob bu desoo rek ci mën a bëre baara dafa mënoon bëre ba jeexal ko ambiance baara fu mu duggoon fecc keneen du fecc fu mu xasoon ba dugg ci géew fecc même bu bërewul bu duggee rek géwal yi tëgal ko rek mu fecc ñëpp dañuy taxawee ne croiser les bras parce que ku fecc doo am dara tellement que dafa déggoon galañ am facilité pour tracer ay pas yaa may dégg xam nag soxore ko soxorewu ko kenn yéen yéen am sens mu nekk seen coach ah li ma leer ba leer de mooy ki ngeen am am na ki ngeen yor am na xam-xam mais man je sais très bien que ne entraînement dafa soxor baara baara du baale. dëgg la baara du baale dara barki alxuraan lu métti la ñuy teg ma coach Thier. mu téye da ngay entraîné. force. Thierno Sakho moom moo leen yor boxe. Thierno Sakho moom dañuy yor nañu physique yor ñu lépp moom tamit kenn du moom ah. mhm. yàlla xam na ko mhm. moom coach Baara sax mun nañu entraîné moom mun nañu kaf dire mais Thier bu ñuy entraîné rek acca moom tàngat jeexul doo gis sax mu ree wala mu muñu wi demee noonu. léegi day arñi ña non arñi bi lay dóor. bilaay man saa damay ñëw si di ko mbalak xam di xaw a kiiwaale mais xam nga tri bi la may may ma xam ne naas kii essence la nekk man fu ma jaar damay nekk si dëgg force. instant bi ñaata séance ngay entraîné par instant ne maa ngi dóor 3. waaw. xalalaadi wala nga fàtte. may ma jàmm xale ba ci lan moom xanaa xanaa doo nit nit nit a boy di entraîné baxal des fois nga entraîné entraîné ba jékki-jékki rek kalaate ci mais je suis jeune quoi tu es jeune yeah mën ngay làkk français yeah mën ngay làkk français toi kay <laughs> ah yéen yéen a yéen a dé a teewe sama seede moom moo ma il a il a parlé en français il s'est exprimé en français n'est-ce pas nee la ba xam man ngay lak français nga ne ma nga ne ma toi waaw nañ dem kay sénégalais ñu ngi sétane on avance dama bëgg gaay comprendre rek mais bu won lolu loolu dinaa la sifaay ci français ba nga xam ne maag duñu morom

benn heure bi nii su ma ñëwee dalu benn heure bi ma dem. ñëw lekk def dara sa biir te di dalu nelaw tuuti. nice benn heure bi ma dem saal ngoon maa yi su ma ñëwee nelaw ba pare aja dem école ba kase. matin temps bi ngay dem suuf sa entraîné physique benn instant nga ñibbi si lekk def dara sa biir tëdd dalu tuuti 10 heures nga dem saal musculation entraîné musculation ba ay midi boo ñëwaatee dalluwaat tuuti lekk dallu tuuti ngoon maa bi 4 heures 5 heures nga dem contact. Mm-hmm. nice trois séances par jour. di waajal le 6 mars. incha allah. booy am nga people am nga am nga supporter. ah dama ah bul ma ne ah bul ma bul ma jaxaseeg Sénégalais damay laaj Mama la du ma ko laaj est am na supporter Papa Cité du ko laaj est-ce que am na supporter Vieux Dacia keroog li mu mobilisé mu doyul dara doot la doy mais yow gisu gisagu ma nga bëri moo tax je me permets de poser une question est-ce que am nga supporter. xam yoo xam ne keroog am na ku ne ci ginnaaw kii mooy raw may ma jàmm booy waxuma ak yow de. <laughs> <laughs> ab yi mooy raw yaa <laughs> Ndiassé yoole yoole bi mooy raw eh xam nga di santaat nag bu baax a baax a baax a baax gannaaw bi maa ngi santaar bu baax barke Serigne Touba gis na fii nii maanaam surtout onze be jaxaay sax laa wax bépp mbër bu fi génn force da ngay génne mbooloo parce que gars yi nangu nañ topp mbër esaat booy ay phénomène lañ yee ay booy yu waane ñoo fi nekk boo yu mën a fecc dégg galañ ima booy bi Papa Siteu beneen boobu ma gis keroog keroog open press bi open press bi cité fàtte naa tur xaw ma kan la ci booy bu dégg galañ ah kan la ci ah alliance cité yow yow la ah, zal non non zal zal la xaw ma non la cité la kan la ci zal cité zal il il il danse très bien yeah il danse très bien il danse dafa am facilité booy boobu tamit pour moom mooy loolu déplacement bi daf ci am facilité naas yi dëggee mooy loolu <laughs> naaj kay di ko bëgg waale ah. Boy, t'es un tubaab ou tu te fais passer pour un tubaab. dégg ma. tu es un tubaab ou tu te fais passer pour un tubaab. non passer rek. tu te fais passer pour un tubaab. yeah. on verra ça après yow di nga làkk français wóor na yàlla di nga làkk français ba Sénégal gi yëpp xam na nga français instant bi dama dama bëgg gars comprendre Les questions yi m'ont posées, su ma la poser posé en français boo tontoo duñu comprendre donc instant bi dañu da ngay tontu question ba après nag waaw ñu traduire ko en français nag dégg voilà euh, instant bi comme ni ma la ko Il y a de jeunes phénomènes.

ci une façon de danser maanaam seen seen fecc dafa am différence fête, Mama Lamine moom moo gën musclé Mama Lamine quand il danse da ngay gis ne ki force lay démé papa buy fecc day xawa comédie comme comme comme comme comme trondoowam des fois fecc mi da ci bolé fo kafré mais kii buy fecc arni lay démé comme manam différence bi mën naa ne Mama Lamine buy fecc mën naa gis Ama Baldé papa cité buy fecc trondom papa cité ah, ah, lay gis yow na xaw wa man su may fecc la ngay gis yoo la yeah. mooy da nga yole waat Yole ngay gis léegi léegi yoole boobu nag da nga da nga fas dund ko ak mbëri ci biir làmb jàpp gaay di yoole bar lay de maanaam bul bul wàcc Yeah, no, damaa bëgg nga xam ne ma li may wax dafa nekk si man parce que waxu waxuma pour tirise quoi waxuma tamit xam pour wax rek wax bi di dem parce que li may wax li nga xam dafa dëgg ci yow ok yee xam nga la jour ja ngay gis mu taxaw ak papa ak Lamine ka la de dafa leer numéro deux ngaaka la de waaw wóor ma leer boo bi ngaaka la man ngaaka blende ngaaka blende xanaa xamoo luy loolu nee na ma grand xama lu mu wax xama lu ma wax xama lu ma wax dama fa dem temps yee passé mu ne ma grand bi mu ne ma grand bi ma ne ko naam mu ne ma man maa Tapha Leer numéro deux borom borom cinq cent beñi deux cent caaf toog euh, mbuusu ndox toog di xaar añ nee na moom bu xëyee cent beñe lay lekk deux cent franc caaf naan mbuusu ndox toog di xaar añ waaw moom loolu lay xaar quoi man moom caax bi sànja laa koy lekkee hmm. bu dul lool moom pare naa si mais moom mooy loolu. réew nga réew nga de. <laughs> non. non da ngaa réew lan mooy caaf bi sànja laa koy lekkee genre yooyu noonu. <laughs> man dinaa xëy fajar te di lekk ay caaf ama <laughs> mais ni kaay mooy loolu gars yi non. li ngay wax ni Tapha Leer da lay gën a mere. damaa bëgg essai mu xonet. yee xam nga. man wóor na ma ne instant lii nii gis nga xoolal. bés bu mako ko monté bés bu ma ko monté envoyé ko bu ko sétané dal ma woo ne ma grand bi ma ko na mu boy bi dina ko siwaay bi mu wàcc man xamna boy bi tafaler je le connais très bien. dama bëgg tafaler Leer est-ce que tu m'entends très bien. waaw il entend parle comprendre moi tiaf je te paie une santé yaa <laughs> comprendre je je mange une santé. noppil kenn laaju la eh, yow dégo français nopil mën a corriger da ngaa dégg français ba. <laughs> ay Thiaf yi I Chavini. Zamas Sanjay. Qui qui grignote euh, le, tchaf euh, au sentier. Zamas Sanje, Sanje. On, dit de la l'arachide grillée. On dit, on dit, on dit, je, grignote seulement de la l'arachide grillée, de, grillée, euh, de la l'arachide grillée au La L'arachide grillée, et existe le l'arachide grillée au sentier. Quand tu es à la maison, tu manges quoi Tu t'alimentes avec quoi et quoi et quoi Riz Riz. Yeah. ay waay gars yi ci jàpp waaye noppi leen nee naa leen su ma tàncee booy bi bàyyi leen maag moom may leen ma rek ci ci quoi à la maison quand tu reviens de l'entraînement, au matin, au matin, tu vas t'entraîner, n'est-ce pas à, ton retour, tu manges quoi Comme petit déjeuner, tu prends quoi euh, Je prends une mbrou. On dit, on dit, on dit, je prends du pain. Du pain, mbrou c'est en Wolof. En français, on dit pain, d'accord tu, prends du pain. je mange pain. Pain, pain et tichar. <laughs> Exprime-toi par Quand je char le pain, ah <laughs> je fais nan bagal. Ok, ok. Trois nan des, des œufs. Tu prends trois œufs. Nel baral, niabe spaghetti, mayonnaise petit pois, macaroni. Tu manges tout ça au petit déjeuner. Yeah. Et après tu te reposes, tu dors un peu. Yeah. Après tu te réveilles, tu vas euh, à, la salle de musculation. Yeah. Pour t'entraîner à nouveau. Yeah. Pour te muscler. Eh, ok. Et après à tu retour. que day fekk maanaam kii bi. tu parles en français. oui tu parles en yow ci français. Tu ci français yow ci français euh, après, après ton entraînement à la salle de musculation, à ton retour à la maison, tu prends quoi Tu fais quoi Moi, deux heures. C'est un Wolof, boy. C'est un Wolof qui parle en français. Après, on revient en Wolof. Ouais, quand Yolé, Yolé, ben instant. Comment habite Haouna wax naa ko waxati naa nena nee naa gars yi dañ naan mbër bu ndaw mais des fois nga gis mbër bu ndaw boo xam ne li muy financé ci combat mbër bu mag du ko financé des fois nga gis bu ndaw boo xam ne coono bi muy daj ci combat mbër bu mag du ko du ci combat ngeen fofu ngeen toll

mais bu dee dëgg rek moom xawna tar quoi parce que. tarna tarna eh, non tarna na moom dëgg fi yalla tarna de barki alquran parce que yenn da ngay am fi combat do comprendre quoi barki alquran day tar lool. di ko ñëfal sa bop yaag yaag mafia billahi wallahi wa talaay mafia bi mo tax ñi yalla yalla yalla ñu suñu borom sutural ba lepp lu nga xamne ñun bëgg nañu ko su làmb rek ñu am ko ngir mu leena teral ñoom ñi barki alquran karim manam boy booy doo comprendre sax dañuy sonn barki Seydina Muhammad koo ci xool rek da ngay xam ne kii yéen a bu am doole lay doxee. ay t-shirt bu dul sax t-shirt yi dañuy yëkkati sax seen xaalis di ko def seen làmb barki alxuraani karim di ko def si làmb bi bu baax a baax a baax moo tax booy oma seen fay man damay ñaan yàlla rek maanaam suñu ànd bii nii yàlla bu si ca dugg xam nga billaahi wallaahi wa taalaay yàlla bu si ca dugg. dafa rafet quand dafa dafa nice. te aussi bu leen ci kenn jëlee euh, rakk ji je vais dire une man man presque dugg naa fu ne man presque dugg naa fu ne ah mais des fois nga dugg ci koñ fekk fa ñaari mbër ñetti mbër au lieu que ñu booloon nekk benn bokku ndey bokku bàyyi kii day ñoo dene affaire bi man la kennaan foo toog mu ne la diw du ci dara kii taxaw naa non man maa ñëw téye làmb ji genre yooyu noonu amul solo amul solo gis nga boo leen bokkee ndey bokku bàyyi supporter Papa ainsi de suite ainsi ku ci nekk bu ñëw dee bi man la papa bu waroon génn yóbbu 10 car buy génn 6 car la yóbbu pour lan parce que 3 yi Mama Lamine la ñuy pour lan parce yeneen yeneen yeneen 3 ñu ngi fi mais euh, Ndiasse la ñuy supporté alors ko boole woon lépp kuy bëre sa morom taxaw kii moom ndeysaan gis naa ko moom gis naa ko keroog bi papa bëree daanu dafa jooy ba ma yërëm ko te man man bëgguma gis nit kuy jooy da nga

su may reporté danaan Papa Siteu bu jaxaay Mama Lamine numéro 2 bu jaxaay Ndiassa Yole bu jaxaay Vedasia bu jaxaay noonu laa koy noonu laa koy reporté de donc drapeau jaxaay moom ngeen di yóbbu moom ngeen di yëkkati ca kaw kon autorités yi war nañ war nañ leen mën a jàppale waxuma la jaxaay rek mais Kër Massar wala feneen ak feneen sax fu waay mën a nekk mën cee jàpp woo leen wax ak ñoom nañ jàpp ci ko waaw balaa dara sax maa ngi woo ñi nga xam ne ñoom laa sékkal langue bi ku ci mel ni Papa Siteu moom sama waay la maama Lamine sama waay la Sibor sama waay la. yenn saa ji koy defee naa la nag maama ma ji koy def. Ah. ma ñëw nii mu ne ma kaan puusal puusal baax na yow ma lay xaaree. nice. pression bi. Hmm. ku nekk rek ma ji ko boo xam man la suma waa ji waaw ku si nekk pression bi la woon rek pression bi man a filmer te gars yi xaw fa bari léegi dañu bëggoon vie xam am aise quoi benn instant maa koy kaanoo. dëgg la. te ñoom ñëpp boo xoole nag benn lañ ko waa yàlla xam na ko moo tax sànq rek maa la wax si biir wax yàlla yàlla nañ ca seexlu te suñu ànd bi xam a yàlla na yàlla def ba lépp rek mais bu mënul sottee ndoo sax mu am ñi nga xam ne ni maanaam nice dinañ mën a téye mun a may booy doole man waxuma sax sama bopp bari sëñ Bamba parce que maanaam dama yéene si tamit moom laa yéene sama bopp li ma yéene maamam yi moom laa yéene sama bopp moom laa yéene keneen ak keneen yaa ngi comprendre parce que maanaam ëttu làmb moo doon loo xam ne boo si nekee lépp loo yéene sa bopp rek yéene ko nit ki parce que ay nit ñoo lay topp di topp nit te boo bëggee ñu ñu topp la fokk nga yéene nit ñi jàmm yaa ngi moo tax àdduna amul solo na jàppante rek te bëggante te xam na affaire bi ñun la ñu ni neen la jàpp ci góor jàppale góor jàllale kase bu dul dara nag maa ngi sant kàngam santagum bu santagum di nga sant di nga gërëm kàngam daje nañ sànq daje nañ sànq day saan mu liggéey ci moom tamit mën naa ne moom mooy magu booy yàqu ci dara nekk nit ku oyof man boog ci li ma ko xamal ci li ma ko mën a seedeel nekk nit ku oyof nit ku ñàkk ki ñaan franchement parler kàngam bu Kër Massar kàngam bu jaxaay sànq rek ba muy wàcc maa ngi génn noonu maag moom ñoo bokk oto euh, mais raka ji sant gërëm di nga ci ñëw di nga sant gërëm ñëpp parce que émission waajal combat la ñu wax il faudra nga woo gars yi ñu ñëw jàpp ci combat bi parce que loolu tamit c'est une importance capitale mbër bu ndaw dafa sonn mbër bu ndaw dafa metti bala ngay àgg ci benn niveau bi ba ngay dem ba commencé fayagu xaalis lu mën lu mën a tax nga ci faj say soxla di ci fajal nit ay soxlam bala ngay àgg ci niveau boobu da ngay sonn donc il faudra tamit gars yi jàpp ci mais wol autorité yi ne la nañ jàpp ci combat bi di woo ñëpp rek di wax na njaase xale la yoole xale la te maanaam xama li naan feccum liir bu neexee ok manam ñëw leen jàppale boy quoi parce que bu dul dara si ñoom bëgg na lu ñuy def di woo ñëpp nag autorité yëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii jaxaay Kër Massar ak fu mu di doon rek maa ngi leen di woo di woo sama bàjjen Kiné borom géejuwaay maa ngi lay woo bu baax a baax yee di wax ne sa doom am na combat sa set am na combat sa jarwaat am na combat nga ñëw nga jàpp si lamb ji bu baax yee di woo ñëpp nag barki que alxuraan te nga ñëw jàpp si kaari nag bu baax a baax a baax di woo sama benn grand bu nekk fii maam Thierno xam nga ak gaayam yëpp di leen wax ne nañu jàpp si làmb ji parce que dañ cee war a jàpp quoi di woo tamit sama goro Ousmane moom sama goro la ko maa ngi koy woo si làmb ji tam bu baax a baax a baax a baax baax a baax a baax di woo ñëpp di bëggee ñëpp tamit ah na ngeen ñëw ngeen jàpp ci combat yi bu baax. ngeen mobilisation bi kan moo koy a jag coono rek. kan ak kan. non ñep ñep amul tur. ok non xam nga affaire bi équipe la nee gaay mbeur entreprise la té équipe da ngay classer da ngay classer gardien classer défenseur classer milieu terrain classer attaquant ñep ñep ñëppay football euh, non non ça veut dire ñëppay attaqué ñëppay défendre ah loloy wax di yalla na jàmm yàgg rakk ji émission waajal combat duma ci dugal question réponse parce que waajal combat la combat bi moo tax ma jóge fi te yow ñëw ma retracer sa carrière combat bi moo tax ma ñëw fi nga wax ma noo koy waajalee nga wax ci sa adversaire nga woote gars yi nañ ñëw jàpp ci combat bi xam ne seen rakk seen doom seen jarbaat am na combat bu ñu fa jógee hmm, après combat bi lu mënti xew danañ toogaat de eh, da ngay open press waaw incha allah jàppaguñ nag mais incha allah bu ñu jàppee dinaa la kóol so daal promo combat bi dañ koy def ba mu ba mu neex tàggatool ñu waajal combat waa di bëggee waa rek ah di bëggee waa ñëpp xam nga di saara ñëpp tamit waa di wax ne xam xale yi am nañ combat ñëw la ngeen jàpp si Pacite am na komba yoole am na komba yee maama am na combat xam nga na ngeen ñëw ngeen jàpp ci quoi di wax ne tamit xam na waaw di leen bëggee tamit kaan bu baax a baax baax a baax ah di wax ne xam nga di ngeen ñu ñaanal bu baax baax a baax non kooku koku kenn la vieux koku daja la wallahi koku mun ñoo wax sax mom moom yow boo xalal bo kal won sax dama koy wax parce que vieux mo do nit ko xamne dafa extraordinaire kooku koku manam zero faute quoi xama nga <laughs> daja ñu ngi lay bëgg lu wér-wér la ñaanal carrière jàmm parce ye yeah di bëggee ñëpp nag ah yeah yeah yeah pas de souci ok nice yeah di bëggee waar ah di sant nag xama sunu waa kër bu baax di sant ya, sama papa bu baax baax baax baax di sant sama papa ya. di santaat sama papa bu baax yaay mi ngi fi di sant sama yaay tamit di ko santaat bu baax bah baax baax di sant sama tante ak sama maam di nekk si kër gi ah di bëggee ñëpp sant sama mag paa bu ndaw bi nekk si gaale bi moom di si jàpp parce que Serigne Touba Mbacke di sant nag kenn koo xam ne moom sama papa la moom sama papa naages moom muy ajuma saw per per maa lay lu bare bare bare bare di na nag sa damanu combat la si jàpp doyul eh, di la siyaar lu bare bare bare eh, waa na yaatu tamit maa ngi leen di siyaare di leen bëggee bu baax a baax di wax ne yéen tamit da ngeen ñëw jàpp si combat bu baax baax waa na yaatu eh, bàyyi ma ci kenn nag ku ci gën a ndaw ba ci ku dem waaw mu taali di la siyaar DJ koku tamit suñu grand la bo xamna mu ñu fayam eh, barki alquran koku ñun buñ ragulul rek mom la mom da ci japp billahi wallahi koku buñ ragulul rek mom la eh, di bëggewaat mafia bi ha ah. di bëggewaat Papa Cité Mama Lamine di ha ah. eh billahi wallahi eh ku jëmeng Adama sar billahi wallahi ah di nyep, ñepp ku jëmeng mom kenn la si man ah waaw non kenn la si man barki alcorane karim kooku sama jigen ju bax la mook jëkkëram njaase xam di len bëggee la wéré wére wér di bëggee ñëpp nak di sant ñëpp euh, euh, mesdames et messieurs aujourd'hui on est ici à Jaxaay 11B on est venu rendre visite à Ndiasse Yolé un des, euh, des un des meilleurs de sa génération je peux dire hein, un jeune espoir pensionnaire de l'écurie Jaxaay Mbolo euh, Ndiasse je te salue comment allez-vous ça va bien tu, tu vas très bien yeah, je... il paraît que tu es en train de préparer un combat oui euh, face à qui Tout ça. ce ça, c'est pas du français. Tu vas parler en français. Maintenant, on en a fini avec le Wolof. Tu t'exprimes en français. Il paraît que tu es en combat. Tu dois affronter qui Tafalère numéro 2. Tu dois affronter Tafalère numéro 2. Tafalère numéro 2, pensionnaire euh, de, l'écurie Jambar Wrestling Academy. N'est-ce pas euh, Ce sera la première sortie de, ta carrière en tant que, euh, que lutteur qui doit, qui doit, qui doit lutter en, lutte avec frappe. Yeah. Yeah premier combat de ta carrière. On lutte avec Franc. c'est mon premier combat. et tu le prépares comment. et je prépare pour brûler et frapper. bëre ce c'est pas du français on dit lutter en français. Quoi, madame lutte. je prépare et lutte et je frappe. tu prépares à lutter et à frapper. yeah je frappe très bien kay. tu frappes très bien. yeah. tu comptes frapper ton adversaire. Boubar? Boubar, c'est pas en français. <laughs> ah comme. c'est du Hollande. Ah, bien sûr. très bien quoi. Yeah. Tu comptes frapper ton adversaire très bien, très, très, très fort. Taper très fort. Nice, très bien. Et maintenant, s'il riposte, euh, si, si, ton, si ton adversaire t'invite à la bagarre, si ton adversaire t'invite à la bagarre, disons que, disons que au coup d'envoi de l'arbitre, si ton, si, ton, si ton adversaire euh, essaie de t'acculer et qu'il essaie de t'inviter à la bagarre, tu vas, riposter, tu vas, tu vas répondre comment Tu vas fuir, tu vas rester sur place, tu vas encaisser ou tu vas riposter, tu vas faire quoi Tu vas fuir, jamais. Tu fuiras jamais. Je bagarre. Tu vas te bagarrer. Boubar. Boubar, c'est pas du fond. Très bien. Très bien, voilà, tu vas te bagarrer très bien. Yeah. Voilà, et après Après, je qui The King Moudano. <laughs> voilà, je Dormoudano. Tu Il donne un coup, il donne un coup, il met un KO. Yeah. Il met KO. Je KO très bien. Il met KO. Je le KO. Tu le coup de coup jusqu'à ce qu'il tombe KO. Yeah. Ce sera comme ça. Voilà. comme ça que ça va se passer. Inch'Allah. Et après, tu feras quoi après Tu vas jubiler avec les Très bien, Kay. Mm. Yeah. Vous, vous préparez comment euh, avec des supporters Les lutteurs sont là, ils sont venus euh, euh, ils sont venus euh, t'apporter leur soutien. Capacité est venue faire l'acte de présence. Maman Lamine aussi est, ici présent. Mais avec les supporters, vous comptez vous y mettre comment Comment vous, vous préparez le combat Yeah, Alléluia, Khama. Ça veut dire quoi Madame Khaman ne dois pas du français tu dois t'exprimer uniquement en français tu peux pas un mot en wolof papa Nopel, ça y en ci papa Siteu Boy, waxuma est-ce qu'on est d'accord tu dois t'exprimer en français est-ce qu'on est d'accord le combat tu le prépares comment avec tes supporters Madame, je évité tout quoi évite quoi Je nga mafia ah, tu invites tu invites on ne doit pas dire tu évites quand tu dis évite c'est éviter une personne on évite une personne comme ça mais quand tu invites c'est quand tu dis une personne venez quand tu appelles les gens à venir vers toi, tu les invites à, sonner, la mobilisation. Yeah, madame, comment je, je, je, tout le. Invite, invite. Madame, je évite tout le monde. comprends? Comprendre Tous les sympathisants, tous les frères, tous les sœurs, à venir te supporter, à venir t'apporter leur soutien. Yeah. Okay. J'ai évité toutes ces personnes qui vivent dans le Djahaï. Qui habitent ici au Djahaï. Yeah, qui habitent ici au Djahaï. Ouais. Tu comprends Yeah, je tout qui me revenir pour me soutenir pour le combat le 6 mars, comprendre. Pour... viens vient t'accompagner yeah. au stade yeah, Pour me vivre, je me combat. Pour, te galvaniser davantage yeah, yeah, yeah. Pour te pousser à la victoire Yeah, Inch'Allah. Je, tout le monde. Et, côté préparation, physiquement, techniquement, mystiquement, mentalement, est-ce que tu te sens prêt yeah, Je prépare tout. Tu te prépares tout Tout, ouais. tu, ne laisses sur rien du tout Non, je ne reste... Bonne bonne position, madame ça c'est pas des Français yeah, maanaam du ma may dara bokk. Okay, okay. <laughs> tous les côtés quoi. tu ne négliges aucun détail. yeah. tu ne négliges aucun détail. booy yow lu sa da ngaa dégg français. ah da ngaa dégg français baa bañ jàkkaarloo dégg nga tey njaase la la laa laa ko seexal sa yoon nekku ci euh, euh, tu ne laisses aucun détail n'est-ce pas. jamais hmm? yeah jamais. tu t'entraînes bien. bien gars tu te reposes bien. je te repose bien. tu as les moyens Est-ce que tu as, tu as assez, assez de moyens financièrement pour financer ton combat Yeah, mashallah, alhamdulillah. Mobilisation. Ça passe très bien. Pour les, tickets. Ça passe très bien. Pour les cars qui doivent rallier le stade. Ça passe très bien. Pour le regroupement. Ça passe très bien. <laughs> mesdames, mesdames et messieurs, c'était avec le phénomène de Djaraï. Ndiassé Yolé ici à Djaraï 11B dama une di dig ba émission la won combat ah. c'est comme c'est la petite de le dire ay mbeur yu ndaw lañu ay mbeur yu ndaw lañu mais li ñuy mbeur ci yu mag yi mi ngi ci mbeur yu ndaw yi mi ngi ni dafa wara beure bëre le euh, le 6 le 6 mars 2022 wara beure bëre ak kan war a ak tafaler numéro 2 bu écurie jambar Wrestling Academy jouru combat Thiatou Rebeus ak Cité bu Ngor kan moo teug tëgg Petit Production kon sama gaay le phénomène mi ngi ni ah le phénomène de jaxay comme geleb ci del dinan mi ngi ni warul sumeeku taxaw ci géew ñu ne ki kala mais bés bu ko taxaw ci géew ne leen jaase yoole mi ngi nële adversaire am nee na mi ngi ñëw daal sa kaw loolu yéen ñaar la yéen a koy lijjanti ci biir géew bi dama leen di joxaat dig daje ba beneen yoon rek ziar ziaraat jàngeen jëf sama gaay